alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu mi ngi tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci téeram bi ñuy wax Nuurul Basar. di ko barkeeloo fii ci kursi ci diwaan sayyidina muhammadul maamun sallallahu alayhi wa sallam lu mbaa gàmm ma dina bàyyi bàyyi mu ne radiallahu summa nuuxan summa alxalilu wa ismailu wa wazabihu zeynu rijaali sallallahu alayhi summa adnaanu baadu summa maadan wa nizaaran dégg waa ahsin bi silki saali de sallallahu de kooku ma yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi waaw mu ne bi nga xamee ne kese yontu yàlla nuuhu dawee na démb ci gaal ga ak yontu yàlla ibrahim ca safara sa nga xam ne moom lañ ko sànni woon bañ ko sànnee ci safara sa numuruus noonu yàlla bi moo ko fa sànni woon li waral mu sànni ko fa yontu yàlla ibrahim dafa bëggoon yàlla lool doon wéetal yàlla ma sa jaar ci bokkaale yàlla bi mu ñëwee fekk mbokkam yépp ak xeetam di jaamu ay xëram mu ñëw ci ñoom ne leen baleen li ngeen di jaamu li ngeen di jaamu du dëgg yàlla mooy dëgg de moo tax ñu tuddee ko xutbu tawhid de moom mooy bu wéetal yàlla de alayhi salaatu wasalaam ci xissa boo xam ne xissa bu yaatu la bi nga xamee ne fekk na seen yàlla yi ñu ngi ko tabaxi tàndarma mu ne ñee ko dof ay nit yoo xam ne daal jëfewu suñ seen xel yàlla lim màggee bind mbindee fa mii may leen lim leen may may doomu aadama kattan bi mu ko may ko xel nga wal bëtiku dellu gannaaw bay tabax sa yàllaay bopp di ko tabaxee tàndarma te boo xiifee di ko lekk loolu la waa Quraysh yi doon def de loolu ci réer la bokk te ñu leen jiitu woon tamit lañ ko royee woon de bi nga xamee ne nag ñoom tabax nañ seen yàlla yu bëri di ko jaamu Ibrahima alayhi salaam ñëw na leen yàlla yi ngeen di jaamu wérut de na ngeen dellu ci yàlla na ngeen wéetal yàlla na ngeen jaamu yàlla de ñu bañ mu bett leen ñëw ci seen bërëb yi ñu def seen yàlla yi jaxase lépp daane leen de ñu xëy ñëw ñoom ñëpp na dëll nekku ku def lii suñu yàlla yi ñu ne neen laaj leen xale bi ñu wax ibrahim ñoo ibrahim ne ko yow ibrahim yow lañ tuumaal na yaa def nii suñu yàlla yi mu ne laaj leen seen yàlla ju mag ji ba xam mën naa wax mu tontu leen kan moom waxal leen kan moo def lii comme moom yàlla la de mu ngee mu daal leen wedem loo daal leen gàcca leen seen biir ak ci kanam àddina de ndax yàlla dafa war a wax yàlla dafa war a dégg yàlla dafa xam te yàlla mu ne na moom mooy wax mooy dégg moo ki xam de kon naka la leen di joxoñee ci yàlla joo xam ne du yàlla te mënta tontu mën leen a xamal sax kat moo daaneel seen yàlla yi de da nga farajaaw ilaa anfusihim fa qaalu innakum kuntum zaalimiin mu nekk si wàllu suma xaraam tamaa wala yantiquuna de ñu daal dellu seen bopp de xam ne gàm nañ gàcce de daal di xam ne seen yàlla yi mënuñoo wax de biñu demee nag ba ca biir ñu ne Ibrahima mi foog ñu sàkkal ko pexe waaw daal di wax nag ne da nga alquran ne waaraadu bii kay ba jaal naa mu las fali de ñu daal di pexeel Ibrahima daal di koy oo mu ñëw ñu jàpp ko daal koy futti def ko yar mu neen yeew ko daal di koy denc yonentu yàlla Ibrahim yàlla daf koo dimbale kan la ko dimbalee yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ñu tuddi xisa bi de bi nga xamee ne nag dem nañ ba jël ko Namruus noonu yàlla la woon buur la woon ci jamonoom dafa yónnee mu ne képp koo xam ne nii yaa ngi ci dëkk bi rek na nga dem nga nga sa nga nga taxani mayut kenn ngànt képp ku ne ci àddina te ci kilifteefam da nga waaw tund yu ko wër yëpp daf leen na daf leen na ah, taxañi loo ñu taxan ay weeri weeri weer yoo xam ne ku nekk da nga indi sa saam dem sànni ci àll ba xataa sax ku ci am doom ju ëmb ah, koo xam da nga ëmb doom na nga na nga na nga indi sa saam indi sa saami doom ji nga ëmb de ñëpp indi seeni saam de nga ko def ñu taal ko safara safara si kéema ne kéemaane na kéemaane goo xam ne kenn mënu koo jege waaw ay ay ay kilomètre lañ ko soree waaw xataa njanaaw yi sax waaw jamono jooju ñëpp a dee li ci ëpp ci jaww ji dafa tàng bi benn njanaaw bu fa jege rek on na ci garab yi dee nañ de ngir tàngoo di safara soo xam ne ay weer weer lañ ko taal pour lakk Ibrahima alayhi salaam da mbugaleeko ko de bi loolu amee nag ci tënk ñu daal di koy jàpp daal di koy yeew ci lañ njëkk defaree li ñuy wax mbëq daal ko ci teg lu mel ni machine la daal di xëcc laspeer bi ba mu gudd ñu teg ko ci waaw nataal ko fu sori natt ko ci safara sa fa mu toll yéegal ko ba mu kawe ñu daal di tóoj xëcc ko rek sànni ko rek mu sànneeku ci daanu ci safara sa de moom kenn de ñu jàpp ne dee na yàlla daal di ne jibril gaawal loo gaaw xeeb naa ko jibril juróom-benn yi waaw téeméer yi mbagg la yore yoo xam ne nii juróom-benn junne mbagg yoo xam ne nii benn bokku ci ak morom de bi amee nag juróom téeméeri mbagg jibril daal di naaw ci saasi rek dem gatandu yonent yàlla ibrahim mu ne ko ma dimbale la mu ne ko déedéet man aw ma ceew soxla dimbale yàlla doy na ma de mu ne ko waxal sa borom mu dimbale la mu ne ko xam gi mu xam ci li ma nekk rek waaw te moo tax ma def lii lool doy na ma de jarul ma di ko wax dara moom xam na ci lan laa nekk de daal di wax tur yàlla mu màgg boobu xasbunallah wa neemal wakiil yàlla doy nañu te ñu ngi wakiilu ci yàlla doyloo naa yàlla te maa ngi wakkilu ci yàlla bi mu waxee loolu rek yàlla daal di koy méngoo moom coopam de bu ko neexoon mu mu dimbale koo jibril te jibril jaamam yàlla la malaaka soo bàyyi du loru waaye tawhid bu mag bu mu nekkoon ak wéetal yàlla bi gisutoon sax moom jibril boobu mi ngi ci fànnaaw gisu dara ku may yàlla waaw moo tax gisutoon kattanu jibril te jibril feneen amul kattan kattanu yàlla la yore de kattan yëpp kattanu yàlla la laa hawla wala quwwata illa billahi alquran ne qul naa yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala ibrahim wa alaadu bi kenoo jàll naamu dégg balaa jeex yi de mu ne alquran ne yow safara si nekkal di sedd waaw ak euh, jàmm ci ibrahim bàyyi mu ne bu ko waxoon nekkal lu sedd rek safara si bu seddee sedd bu bari baaxul ci doomu aadama dana ko lor bu ko waxoon ne ko tamit dégg waaye daf ko wax ne ko seddal tam ànd ak jàmm de te la ibrahima muccee de mu jigi safara si yëpp soppeeku waaw aljanna ci moom de loolu ci fi yàlla yi la bokk ñoom Namruus ñoom jàpp nañ ne Ibrahima dee na Ibrahima alayhi salaam ne nañ def na fa ñetti fan ñi ne juróom-ñaari fan ñi ne ñaar fukk fan ak benn ñi ne ñetti weer waaye ak lu mën a xew daal nee na ba mu génnee nee fan yi mu def ci waaw ci safara si moo ko dàqal mboolem fan yi mu dund ci àddina ndax bu xiifee lekk aljanna lay bàyyi ko rek malaaka indil ko muy lekk waaw amul benn coono wala benn feebar bu mu yëg ci biñ ko sànne ki safara soosu nga xam ne dañ koo waajal ay weer di ko xam di ko taal radiallahu anhu alayhi salaam bi loolu amee nag yàlla musal ko kan la ko yàlla musal musalee leeru yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kan la ko yàlla musalee julli ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam looloo tax yàlla xaar ko ci ci ci ci ci ci musiba boobu de bi nga xamee lan na nag waaw moom la bàyyi di wax ne da nga waaw da nga yàlla ibrahima zuma nuuhan zuma xalilu mooy yonentu yàlla ibrahima de wa ismailu ak ismail dawee na démb mooy yontu yàlla Ismaayil waxoon nañ ne mooy ba maam la ci moom yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa mooy maamam bi ko gën a jege ci yonent yi waaw ba gannaaw ga teguñ ci lu yàgg rek yontu yàlla Muhammad juddu ci diggante Abdullahi ak Aminata de summa adnaan baadan summa maadan wa nizar asan bi sirkillaari de gannaaw loolu nag maat ak adnaan ay maam lañ ci yontu saa am na xadis bu ñëw yontu saa di wax ne yàlla tànn na tànn na Adama ci Adama gannaaw Adama tànn na siisu gannaaw si su tànn na nuun dégg Idrissa gannaaw Idrissa tànn na nuun noonu la ko wooyee di ko wéy di ko wax di ko wax di ko wéy di ko nettali di ko wéyal di ko wéyal di ko wax ba agsi ci waaw da nga ah, Abdou ba ci Abdoulaye am na te nga xam ne nii ñoom ñoo ko jur de sallallahu alayhi wa sallam ñoom Adnaan ak ñoom Luweeg ak Kaab yëpp ak Mudar ñi xala ñëw ci bayti yi ma jàng léegi ci xasida baay bi ñoom ñëpp ñëw nañ ci xadis boobu de sallallahu alayhi nga dégg ci ak taar ci nos ko gaa moom nos ko eh, askanu yoon bi la sallallahu alayhi wa sallam da nga xam ne dafa taaru de mu darun na najluhu wa Ilyaasu maa mu tëkkatu maa Xusaymatu labtaal yi de te daal ki ni noonu tamit mu dar waaw ci maam ñu ci jàmbaar yi nga xam ne ni ci lañ bokk de boobu ne ala kanaatal ma yun ma da nga xaarifiq mustafid nawaar yi de boobu ba tey tamit ñu ngi nettali koo xam ne nii dañ koy askan jëmee ko ci waaw Abdul Mutalib wala ki nga xam ne moom mooy maamam de maam la ci yonent bi sallallahu nga xam ne Hachim la Hachim laay wax nga xam ne Hachimul xirqi al mustafid nawali nga xam ne dégg nga dégg nga dafa bëri woon ngëneel te dafa bëbboon de ay ngëneelam daf doon sotteeku rek di sotteeku rek ku tabe la woon koo xam ne képp ku nekk ak moom rek mu jëriñ la képp ku ko wax soxla mu fajal la ko képp kum xam ne am nga soxla donte waxoo ko sax bu ko mënee waaw dana ci def la mën de kooku maam la woon ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa gannaaw loolu bàyyi woy ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci tagg baayam ak tagg ay maamam dégg nga mu daal di wax ne dégg nga waaw mu ne bittifaaqi ma bayna waala wa ma baadoo bi xul bi xul fi rijaali lu jiitu loolu mu ne walidul muqafa dégg nga zumma zumma baada haadaka sheybatul hamdi zumma baada haadaka sham sheybatul nuuri walhamdi dégg nga de mu ne gannaaw loolu nag mu tudd sheybatul euh, leer kamaali de kooku mooy bàyyi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw bu bàyyi tuddee Mudar tudd Luway tudd Mudrikata tudd Najlu Mudrikata tudd Nazar tudd waaw da nga ñooñu aju ñoo ñëpp ci da nga waaw Hashimul Xirqi ba ñëw ci ki nga xam ne mooy Abdullahi rek mu badazaka Cheybatu Nuuri mooy waaw taaru leer de Cheyba mooy bejaaw bejaaw bu feeñee ci xarkanami nit wala ba karaw gi ci bopp bi daf koy taaral de taar boobu na nga xam ne moom mujj na nekk di leer moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam baayam Abdoulaye moo ko juree ku leer la woon de santaakoon yàlla la woon dañu tuddee ko Abdoulaye aynul Kamal gi xam ne moom moo jëm mat Abdoulaye moomu nag am na xisa bu gudd dañ koy tënk bi nga xamee ne Abdou Moutalib nekkoon na ci Makka di maamam am fa jamono boo xam ne dafa néewoon doole joteeg waa Makka yi ñu lor ko mu daal di mer daal di nësër na yow sama borom maa ngi lay ñaan nga may man fukki doomi góor yu dëgër yoo xambaane yoo xam ne su ma meree rek ñu mer ànd ak man waaw soo ma mayee loolu dinaa ci rend kenn jaamu loxo yàlla boobu rendi nit nekkul lu haram ci ci ci ci seen seen rendi sa doom rek charia amutoon ci jamono jooju daal ba wax ci loolu dara moo tax mu sañoon a wax loolu de boobu fatara moo amoon yonentu feeñagut de sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci jaahiliya xamuñ dara xamuñ lu ñuy jaamoo yàlla benn bés nag yàlla daal di dogal yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ci barkeem yàlla sàmm Abdoulaye dami ko war a jur ndax yonentu bi jiitu na mbindaa foo nii de sallallahu alayhi leeram gi dafa foor alayhi salaatu wa salaam dara mënu koo tilimal de dara mënu koo yàq ba nga xamee loolu am na nag yonentu bi sallallahu alayhi wa xaar Abdoulaye ci baatin Abdoulaye baayam Abdou ku ci mat fukki doom ñaar ñaar bu ko amee dana kenn benn bés mu am doom yooyu am ci jigéen am ci góor yi góor yi ëppoon nag bi nga xamee ne yàlla dogal na mu daal pare loolu benn bés rek waaw mu tëdd bi mu tëddee gént dikkal ko ne ko yow Abdou Moutalib ne saroon nga ne boo amee fukki doom yu góor yu dëgër da nga ci rey kenn jaamoo ko yàlla sa borom mu ne nga nga matal ne sër boobu mu ne ah rey doom lii de xanaa gént rek gént la rek woyof mu fàtte fàttelu toog ba jëmi jamono gént gi ñëwati ne ko Abdou Moutalib sa borom mu ne nga na matal na sa rayal kenn gi sa doom yi mu ne ah roy roy doom li li gént la rek noonu la solokat yi ne nañ lu jege fanweer yu gént dikkal na ko am na ñu wax loolu ci téere yi ak lu mën a xew rek tëbul rek rey ci saasa waaw ndax rey doom dafa dafa dudu di si doomi aadama muy dem di dem di dem ba benn gént gu leer nañ ñi nag dikkal ko ba mu wóor ko ne nag lii ci yàlla la bàyyeekoo mu ne ah nag caaxaan jeex na nag ci buur waaw oote waa Màkka yëpp na dëll biñ dajee am na penc mu ngi daan dajee mu ne sama doom yaa ngi nii nettali leen lam na sëra woon rek buur jël jaaseem ak paakaam na def ci rendi kenn la ci tànn rey ko ñu ne ko rendi bi aada ju bon du fi am mukk ñuy koy seetaan yow kilifa nga ci dëkk bi daanaka yaay buuri dëkk bi soo defee lii ëllëg képp ko amati fukki doom rek doomi aadama day royante mën nañ laa roy ci loolu ñu jàpp ne noonu te fekk du noonu de mu ne anu ah, may def mu ne nañ dem ci boobu jamono yooyu dem ci bu xaaba la moom moo xewoon de bu xaaba boo xam ne waaw dafa am xam-xam ci xam-xami téere yu njëkk yële de ñu ñëwee ci moom ñu laaj ko ne ko mu atte seen diggante ndax boobu sharia amut yonantu amut ku mën a atte seen diggante de mu ne leen li ngay def mooy da ngay teg bant nga wantale nga teg fukki gëlem nga sànni su dalee ci gëlem yi nga xam ne mooy njot li nga rey su jëlee su dalee su dalee kenn ci sa doom yi nag nga xam ne doom jooju moom moom nga war a rey de su da léegi nag bi mu tànnee rek bant yi dal ci Abdoulaye nag bi mu demee bi mu wante loolu ca njëlbeen gi la dafa dafa dafa wantele doomam yi bant dal bant bi dal ci Abdoulaye ndeysaan moom lu gënoon a bëgg ci doomam yi nag mu ne daf koy rey de ñu ne ko lii du fi lañ ko waxee ne ko lii du fi am waa du fi am mukk du fi mës a am nañ nañ nañ dem ci buxaaba ñu demee ci buxaaba bi nag ci la buxaaba bi wax ne ne ko da ngay teg Abdoulaye teg teg fukki gëlem nga wantele sànni bu dalee Abdoulaye nga dolliyaat ba mi dalee gëlem yé de mu teg fukki gëlëm daal di wantale mu dal Abdoulaye mu tegaat fukki gëlëm mu dal Abdoulaye xol bi gën a jeex na ndeysaan mu tegaat fukki fukki gëlëm mu dal Abdoulaye fanweeri gëlëm mu ngi noonu mu tegaat fukk muy ñeen fukki gëlëm mu tegaat fukk muy juróom fukki gëlëm noonu la ko toppalee ba mu mat téeméeri gëlëm bi matee téeméeri gëlëm ci la sànni sànni sànni wa doo daal di soog a dal ci gëlëm yi de muy téeméeri gëlëm waaw waa Makka yëpp cug di fecc waaw di bëgg di sant yàlla di kabar ñu ciy julit ñu ci gëmoon yàlla di kabar waaw ñu ci xam xamul loolu tamit di bëgg daal yëngal seen yaram ñu daal ñoom kontaan nañ lool Abdoulaye waaw daal di di mucc nag ca euh, pexe moomu de paayam Abdou Moutalib daal di rey téeméeri gëlëm ci bés boobu daal di koy saraxe waa Màkkaak ñu waa Màkkaak fu waay déggee mbir mi rek ñëw di jël ci yàpp yi nekk nañ jamono bu yàgg boo xam ne moom la ñuy dundee de kooku mooy bàyyi yonent bi sallallahu <clears throat> gannaaw loolu nag yàlla dogal mu mu màgg bi màggee yàlla dogal mu toll ci bëgg jabar loolu dana ñëw ci kanam de ashiqatu nisa yazulna am walan lawo min ajlil baha wal kamaali qaala mal xaraam fal mawt wala fi kalaami yaqulu du kamaalin de kooku mooy yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi de bi nga xamee nag bàyyi way na baytu boobu ba wax ci bàyyi yonentu sallallahu abdoulaye boobu nga xam ne mooy aynul kamaali mu ne walidul moustapha dégg mooy bàyyi gi nga xam ne dégg nga euh, yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kii moustapha ko daanaka zabiul mufaddaa axirun mu ne abdoulaye moomu ma tudd tuddee ko aynul kamal tuddee ko waaw leer gi kooku mooy bàyyi yontu yàlla moom sax kii moustapha sallallahu alayhi kooku mooy ki nga xam ne waaw mooy bàyyam de bàyyi bi nga xam ne moo ko jur de te def ko yàlla daf ko matal de lu du njomme de mu teg ci ne bi tifaqin ma bayna wa adnaan wa ma baadaw bi xul fii rijaali de dëppoo nañ ci nim askane silsila yontu yàlla moom sosore ko ci yontu yàlla nuun di ko tagg idrisa alayhi salaam adama di leen tagg baag si ci maamam ñi nga xam ne ñoo ko meññ moom sallallahu alayhi wasallam te ci gën a ràññee yontu yàlla ismail bàyyi indi la adnaan indi la maat nazar waaw ah, indi la luway indi la kaab indi la mudar waaw indi la mustafid nawali hashim indi la abdul mutalib waaw ba indi la abdoulahi mi nga xam ne mooy bàyyi yoon saa sama ak aminatu de mu ne nag boroom xam-xami siyér yi ittifaaq ma bayna adnaan dégg nga de adnaan dale ci foofu ba ci adnaan ñëpp dëppoo nañ ne waaw maam yonent bi de wama baadahu la na ci gannaaw adnaan nag bi xul firi jaala ci nekk la ci kuuteeg eh, góor yi siyér yi de mooy ñi nga xam ne dañoo tàggatu woon di dajale sir yontu bi sallallahu alayhi wasallam de ñooñu ñooy saaba bi ak yenn yenn ci taabi yi na yi surtout taabi yi na yi ak taabi taabi na yi nga xam ne waaw eh, bind nañ lu bëri ci siira yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam de ñooñu borom xam-xam yooyu nga xam ne dañ cee spécial xam ko lool ñoom ne nañ lii dañ cee dëppoo waaye gannaaw adnaan nag dañ cee wutee de waaye li wér ne na kontaan nañu yonent sallallahu alayhi wasallam juróomi téeméeri maam ci wàllu baayam dégg nga ak juróomi téeméeri maam ci wàllu yaayam amu ci kenn koo xam ne mos ngaa juddu ci waaw njaaloo de sallallahu alayhi wasallam ittifaaq ma na waat naan a ma baadoo bi xulfi rijaali wa woon bi annahu najlu ibrahima dégg nga wowal xalilu yàlla xilaali de bàyyi bu ne wa saxihoon aji wér la bi annahu naka moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam najlu ibrahima doomu ibrahima tigi la wallahi doomu ibrahima ibrahima waaw maamam la de <clears throat> maam danañ koy askanal doom di ko wax ne doomam la de waaw moom Ibrahima moomu alxalilu mooy xaritu yàlla la de yàlla xilaali yéema la xaritoo ga de yonent yàlla Ibrahima moom la wa taxadar daaw de kooku mooy xaritu yàlla de maam la wala bàyyi la boog waaw ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi la de <clears throat> rabbi atir xabra lamini wahab li nusratan kay alu ala lajjali bàyyi mu ne rabbi yow sama borom attar yàlla nga gëttal xabral amini waaw xabru tarix yonti yàlla muhammad salaa sallam ki nga xam ne moom mooy ku ñu wóolu ki mooy laminu de yàlla nga sotti leer leer yaa moom leer yu mel ni parfum yuy jolli ci raw du yonti yàlla ko kooku ñaan la ak tawasul de sallallahu alayhi wa sallam maa ngi la ñaan ci barke yonti sallallahu alayhi wa sallam boobu yàlla nga may lii ñeel man mu sootan ndimbal yow ma dimbale ndimbal yow xam ne kenn amul ndimbal ku may yow te yaaloo ngir ma kawee ma féetee kaw waaw àlla jaale ci maas gi de may man ndimbal lu jógee ci yow ci barke bi yonent bii ma tagg salaa sama nga xam ne mbooleem sama maas maa leen raw de yàlla defal na ko loolu de mbooleem maasam raw na leen waaw waxuma loolu waaye ñim yar tey nangul ko topp ko ci doom ak taalibe mboolem seen maas ñoo leen raw képp ku jàpp ci bàyyi foo mën a nekk ci àdduna rek waaw yaay féetee kaw sa njaboot ak ñi ak ñi ak sa mbokk ñi nga nekkat de kooku mooy moo naa Cheikh Ibrahim radiyallahu taala de ñaan na yàlla ndimbal ndimbal yàlla ko am yàlla wax ne ma nasru illaa min indillaahi waaw laa zilaakim na dimbal bàyyi ko fu yàlla fenn fu ma ku may ku yàlla wax na feneen ne in tansurullaa yansurukum wa yusabbit aqdaamakum bu ngeen dimbalee yàlla yàlla dimbale leen de waaw dégg nga de waaw dëgëral seen i tànk seen taxawaay de wax na feneen tamit waaw moom moom yàlla ne illaa tansuruhu faqad nasarawullaa bu ngeen dimbalewul yonent sallallahu alayhi wasallam yàlla moom dimbale na ko de <coughs> kooku moo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bàyyi nga wéy nag di ko takk suñu basar ci waaw buntu juddu yonent yàlla Muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam mu ne nuuru awwalul wujudi wujuda fa huwa aslu usuli wal anjali lam yazal nuuru bi ayni ilahi intiqaalin fi lkawni baada intiqaali summa xata xala diya wa tajalla waaw da nga fi abdullah muy woy nag yonent yàlla Muhammad sallam da nga def mu ne leer de nuuru leeram gi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam awalul wujudi mooy bee ak mbindaa foo ni wujudan ci xam leer gi yàlla njëkk xamal mooy leer yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ko fa yàlla de foo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aslul usuli moo cosaani cosaani bàyyi wala anjaali ak doomi de lépp lu am tàdd lépp lu am cosaan ngay aadama mi nga xam ne mooy bàyyi mu ndeefi wallaay yoon saa sax mooy cosaan de ci moom lañ ko bindee de malaaka yi ci yonent bi lañ leen bindee xalimba gi bind yëf yi ci yontu bi la ngeen bindee leer yontu bi salaay salaam waaw àll wa ji ak daa ji ci yontu salaay salaam ko lañ ko bindee de asamaan ak suuf ci leer yontu salaay salaam lañ ko bindee nit ak jinne ak raw ak rawxaan yenke yi ak jamono ak béréb lépp lu yàlla bind li ngeen xam ak li ngeen xamul yëpp li ñu gis ak li ñu gisul lépp yàlla nga ko bindee waaw ci leer yontu yàlla Muhammad salaay salaam de moo tax yonent bi saa sama ne ana minallaahi wal mu'minuuna minnii maa ngi bàyyeekoo ci yàlla waaye ñi gëm yàlla ci man lañu bàyyeekoo de bàyyi ne loolu dëgg la wallaahi dafa tegginu rek moo tax mu amale ko ci waaw ñi gëm yàlla waaye li wér mooy wax ji li mu ëmb mooy ne képp ku bindeef rek yaa ngi jugee ci leer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye loolu daf koo xaasal jullit ñi ñi gëm yàlla ndax loolu dara la ci ñoom ndax ñoom ñoo gëm yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam de <clears throat> ñi gëmul yàlla nag ñoom neen lañ duñ dara de sallallahu alayhi wa sallam waa nuur wa wujud wujud fa waslu suuli wal lañ jaali waaw lam yazal nuuruhu bi ayni ilaahi fi intiqaali fil kawni baada intiqaali leeram gi moom na bi sallallahu alayhi wa sallam masta dañ di toxu waaw jógee ci ndigg yi góor yi waaw di jaar ci ñoom jigéen ñi béy mu accès ci waaw da nga abdoulaye ak aminatu yontu sallallahu alayhi wa sallam ci loolu mooy lan leer la goo xam ne xaqu la woon dara mënu koo tilimal dara mënu koo yàq yàlla namoon na ci asal ne Muhammad dana judd sallallahu alayhi wa sallam ci Màkka nga gàddaay dem Medina de kooku mooy borom leer gu mag gi ne yàlla daf ko jël dénk ko mi nga xam ne moom la yàlla muy taxu ci moom dem ci doomam siisu taxu ci moom dem ci ndigg waaw Idrissa dem ci nu dégg nga noonu la toftalante ci coobare yàlla ba jaar ci yonte yàlla euh, Ibrahima ba ñëw ci yonte yàlla Ismaïl di dem di dem di dem ba agsi ci Abdoulaye ak Aminata de ba yonent bi ne cëpp nag yenu leer ga waaw sallallahu alayhi di jëmi leer ga di mbootu leer ga di leeru leer ga de sallallahu alayhi wa sallam ma xataa xalat diya wa tajalla waaw yàlla def nag ne dégg nga dégg nabi ñu dem ba nga xam ne nag leer gi dem na sotteeku na nag samp na da nga waaw wàcc ci Abdoulaye mi nga xam ne mooy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de mu leer naññ naññ ci ëpp lu mu lu mu leere woon de ashiqatu nisa yabzulna amwalan lahu min ajli lbaha walkamali qaala amal haramu fal mawtu awla bi kalaam yaqulu zu kamalin leer googu ñëwee ci moom nag jigéen ñi topp ko nag bëgg ko lool fekk am na jigéen joo xam ne moom daf koo xamoon dafa jàngoon ci téere yu njëkk ya ne yonantu bi nga xam ne mooy yonantu mujj ak jamono ki nga xam ne mooy moom mooy mooy nekk papaam moo koy jur nangam lay mel taxawaayam nii lay toll kanamam nii lay mel bëtam nii lay mel mandarga yi ci moom daal mu leeral ko ndaw si nag xool Abdoulaye fekk jàngkat lool moom ndaw si xam na téere ji liru na ci téere yahud yi ne xam-xam bi xamal na ko kii mooy Abdoulaye bi mu xamee ne nag mooy Abdoulaye mu gis leer yonantu bi te leer yonantu dund bu sallallahu alayhi wa sallam rek mu topp ko ñëw ci moom gaaral ko boppam ne ko dama lay jox sama bopp man daal pare naa pour jox la téeméeri gëlëm téeméeri xar téeméeri nag ak nangami saako saako saako urus ak jamaa jox la ko rek nga tëdd ak man benn yoon rek boobu li bëggoon mooy jël leer gi ci moom mu jaaloog moom bi ko waxee loolu nag mu daal di wax ne ko man def lu xaraam wallaay dee moom moo gënal de waaye mu ne kii mooy gor yaaram naka jekk ñoom xamuñ def lu def lu naqadi yàlla rawatina boobu boobu charia sax ñëwagut du yaaram yëpp de waaye def ci am ci ñoom ñoo xam ne waaw ci Quraysh ñoom surtout seen jigéen dañoo sa dañoo dañoo sa dañoo sangewo woon de bi loolu amee nag da nga mu daal dem ci baayam ne ko utal ma jabar utal ma jabar daal fu ma génn rek jigéen ñi dañu may topp di ma sàkku de mu ci la ko seetalee ñu gis aminatu waaw ñu bëggante ñu takk say ba keroog bi ñu jokkoo ñoom ñaar ca guddi ga rek ci la aminatu waaw ëmb yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy gën ji mi def de sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima uliqa walxatimi lima سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل قدر دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين